oto yi woon ñu yàgg ya ak oto yii léegi dootul benn parce que oto yi ndox la ñuy bañ parce que ñun ñun dañ leen tuddee ñun bëy wala naar lañ leen tuddee xam nga bëy du sangu naar tamit ne nañ sama maam naar yi ñu ne duñuy sangu loolu la ñuy tooñee euh, ba tax na euh, euh, oto yi waruñoo xuus ci ndox parce que am nañu oto yoo xamante ne dañuy xuus ci ndox moteur dañuy bloqué parce que dañuy jël ndox am na oto yoo xamante ne seen yenn capteur ak seen kii yi ci suuf la féete waruñu daw ci ndox ñu leen di wax ne leen fépp fu ñu gis ndox nañuy tekki kat-kat yi am na ci yoo xam ne mën nañ jaar ci ndox am na ci yoo xamante ne mënuñu jaar ci ndox waaye daal man li ma leen di conseil daal mooy su ndox su am su suy taw mu fekk leen ci kaw tali nañu ut ndànk fu ñu seere bàyyi ba taw bi sebet ñu xool fi nga xamante ne mooy ndox amu fa ñu jaar fa dem seen yoon parce que loolu moom mooy gën tamit xuus ci biir ndox forcé euh, yàq sa moteur moteur boo xamante ne léegi ku ne xam na ni moteur léegi da ngay gis moteur ay 3 ay 1 million 500 moteur ay 800 mille ak tolluwaay réew mi balaa càkk lii la arrangé moom mooy ngay daw ndànk dal ndànk xool li nga xam te ne moom moo la arrangé mooy lan mun ñun mécaniciens yi ñun ñu ngi ne siiw ak oto ñëw waaye tamit oto yi di ñëw di ñëwaat moom du ñu gënal waaye tamit ñu ngi nee ne siiw tamit oto yi di dugg si waaw. loolu di nga hmm. di nga dem ci jàmm ñëw ci jàmm.